jërë jëf kon mbokk yi nga xamante ni yéen a ngi seetaan seen chaîne YouTube GR Info TV euh, nekk fii ci diwaanu ginnaaw raay waaye tamit ci biir département de Pikine di leen jox bépp actualité boo xamante ni soxal na li nga xamante ni mooy làng wala woy politique yi nga xamante ni ñu ngi fii ci biir département bi mbokk yi ni ngeen ko xamee tey nag ñu doxantuwaat ba biir ginnaaw raay nord fekk fi tamit benn ndaw bu nga xamante ni ñu ngi ko tuddee Lamine Thiam ñenn ñi jàpp ni Moustapha Thiam lañ koy woowee muy conseiller municipal ci commune ginnaaw Nord waaye tamit nekk koo xamante ni mooy yore cellule de communication bi Lamine Thiam ñu ngi lay nuyu. Euh, Mor maa ngi lay fay eh, di la dalal ci commune Guinaw Rail di nuyu aussi sa mbokku internet yëpp yi nga xam ne ñu ngi suivre GRF info eh, vraiment di kontaan si sa teewaay. voilà ginnaaw nuyoo yi xam naa ni euh, bañ rek gars yi mere ndax xam naa ni ñu bëri ñi ngi yàkkamti euh, sa teewaay ak tamit kàddu yi nga nar a yëkkati laaj bu njëkk bi rek mooy kan mooy Lamine Thiam. waaw Lamine Thiam ba su ma ko bëggee wax dana jafe parce que olof dafay faral di wax saabu mënta foofu fo foofu boppam. Mhm. waaye kenn ku nekk am nga sañ-sañ ni nii laa mel. Euh, Lamine Thiam benn ndaw la bu dëkk ginnaaw raay nord et di Conseil municipal ci commune bi aussi chargé de la communication bu commune ginnaaw raay et di nit koo xam ne aussi combat wu personnes handicapées yi daf ko ñor. Mhm. parce que je suis le président des personnes handicapées du département de Pikine nekkoon naa si le premier vice-président de la fédération des associations de personnes handicapées et di yëngu aussi ci wàllu mutualisme maanaam ci mutuelle de santé yi. Hmm. waaw. voilà euh, juste rek ci ci tënk xam naa ne noonu nga waxee sa bopp waaye bu ñu xuusee ba si biir dinañ gën a xamante ak euh, yow. dëgg la lan moo la booleeg politique. waaw politique li ma booleeg moom juddoo ci famille politique. Hmm. parce que bu ma nee juddoo ci famille politique ñi koy dégg du leen jaaxal. ndaxte koo ne Mamadou Makhtar Seck ex maire commune Guinaaraay mooy sama mag moo ma yar. Mhm. kon ci famille politique laa juddoo mu nekk parti socialiste. Mhm. mu mu doon koo xam ne bi muy politique euh, daf ñu ci tàggat nampatal ñu ci ba mu doon passion ci ñun ba mu doon aussi sacerdoce pour mën a soqali suñu gox. Mhm. dafa mel ni su ma la déggee kon socialiste nga njëkk doon. moom laa mos a doon te moom laa doon ba léegi. ba ñuy wax ak yow nii ba fii may wax ak yow nii. kon lu la boole ak fi mu nekk nii coalition bi nga xam moom la ñuy wax Benno Bokk Yaakaar. waaw li ñu boole. coalition Benno Bokk Yaakaar actuellement ni sama responsable politique Pape Ndiambé Dièye moom mooy coordinateur Benno Bokk Yaakaar. Mhm. nekk ci biir coalition mais teewal fi parti socialiste. Mhm. moo tax. loolu looloo tax moom mu moo. yow seet keneen waaye moom daal nga choisir. Euh, xam nga ñun suñu parti discipline mhm. moo tax moom rek lañ teg bët gisuñu keneen moom rek moo ñu. caam nag moo wax parti bu discipline parti socialiste moom ba mu tasee jaxasoo moom kenn waxatu ko. xam nga mbootaay boo gis. Mhm. amna parfois ñu ñuy ñuy fàqee ci làng googu dem ci benen langue loolu kenn du mhm. ko bañ mais téw ñaf ñatok toog ca mbootaay ga mhm. xeyna na charte yi moon fa bàyyi te charte dem ne discipline da ci bok d'accord accord GRTV la info euh, bi nga xamanteni mo leen di jox lepp lo xam soxal na walu actualité bi euh Moustapha cham mom lay wax sax parce que xamna ni ñen ñi lamiñ lañ waaye Moustapha lay wax fim nekk ni euh, ñu dëgmal ay élection euh, investir investiture monsieur le maire mi nga xam mooy Pape Ndiambe jee ndax fii ci ginnaaw raay noor cent pour cent lañ mën a wax wala am na ñu koo xaw a lañ eh, lëncee. ah ñun mën nañ jàpp cent pour cent la hmm. xam nga lu tax ah, parce que bi ñuy investir dañ ko jël def ko benn boo ko Yaakaar. d'accord te du ren la ko mës a doon. élection yi nga xam ne bi nekkee ci benn bi yëpp boobu ba léegi moom moo ko mës di jiite. Mm-hmm. xëy na nag ren aussi choix bi bi mu amee am na une partie de la l'APR ñu ne déet am une partie de l'APR ñu ne waaw. kon mhm. dañuy jàpp ne. 100 pour cent la parce que ci biir coalition bi waa APR kese ñoo génn. d' parce que dañu gis ni euh, fii ci ginnaaw raay na lu toll ci juróom-ñetti jàpp juróom-ñeenti candidat loolu dafa bëri. waaw xam nga loolu mooy wan ne ginnaaw raay jéeg jéeg bu jekk la. bi biñ hmm. koy jël jéeg bu la woon waaye nag bi ñu ci noppee nii. waaye ba defar ko jéeg bu jéeg bu jekk la moo tax ñëpp bëgg ko ñëpp nopp ko. moo tax c'est normal. te nag jaaxal nañ trop quartier boo xam ne euh, commune boo xam ne 12 quartiers 9 candidats. sant yàlla. Hmm. neuf quartiers. douze quartiers neuf candidats. dafa dafa doy waar. dafa yéeme trop mais sant yàlla. d' accord euh, yéen a ngi ci juróom-ñaari at bi ngeen jëlee commune beeg léegi parce que jàpp nañu juróomi at yi dañoo war a def ay élection ñu repoussé ko ñaari at ngeen ñëwaat fi mu nekk nii ba tey yéen a jiite euh, tey bu ñu doon xool ci xayma euh, monsieur le maire lan la fi fekk lim fi def ak lu mu fi nar a bàyyee su fekkente ni dina faluwaat nag mu eggale. day faluwaat bu baax incha allah. ci li nga jàpp. ci ci ci li ñu gëm ci li nar a am bu non yow ci li nga jàpp. ci li naram bu soobee yàlla. waaw mais ci li nga jàpp. mooy li naram rek incha allah. Hmm. Euh, li tax ma ne la day faluwaat dama fay sax porox ndool la hmm. euh, jaar aussi ci roq boobu parce que duma ci taxaw parce que jarul ma ciy taxaw. Hmm. Euh, di wax sama frère Moussa parce que seetaan naa ko aussi ci GRTV parce que dañ koy suivre pour lui dire que ñun dañu am jaaxle ci moom.

Euh, bokk ci ben mouvement bu ñu naan ginnaaw debout. te mouvement boobu ci bopam dafa mm. dem def coalition ak euh, le député mam Diarra Fam pour dem ci élection yi ñom ñu teew ci bu am solo kon. Mm. gis na sax ci émission mom dafa yëkëti mam Diarra sama xarit bu baax a baax. d'accord mais mais mais juste juste man damay bëgg euh, li ma la laaj ñu tontu après. à la fin nga nga ah, nga nga wax sa sa kàddu gu mujj. d'accord xam nga fa lay jaar pour walé ko. d'accord parce que def né mm-hmm. bilan maire. Mm-hmm. def fi tous. d'accord le dul. euh li nga xam moy école bi nga xam ñu ngi koy tabax alhamdulilah maison de la femme bi nga xam mi ngi en cours de construction alhamdulilah. Mhm. te neena def fi tous mais buñu ñu doon ñëw ci bilan bi xam ñun suñu bilan. non bi ngeen ñëwee li ngeen fi fekk. biñu ñu biñu fekk xam lu fekk. waaw commune bu lëndëm crise mhm. commune bo xam dafa am ay maison abandonnées. d'accord commune bo xam ne inondation daanaka nang woon nako ba paré saay bu tawee ginnaaw raay nit ñi jaaxle. Mhm. commune bo xam ne fu muy jëlé ressource su d'accord commune bo xam amutoon capacité wu jël ci ay doomam pour liggéey leen pour wéru ñu am as suut lu ko. comme bu mel nous lañ fi fek nam ñiko yoron def nañu ay mhm. mais aussi commune bi dafa mhm. euh, dañ ko sax suñu page Facebook le maire Pape élection bilan bi mu askanu bu ngeen ma falé li dina ko def lenn la ci deful. Mhm. muy bibliothèque communale askanu oh, parce que dem na ba ci biir gis ne priorité la ci biir priorité mais amoon na leneen lu gën a nekk priorité te saafara ko da doon doon njariñ ci askan wi. d'accord ba dafa def loo xam ne diggéewu woon. Mhm. moo tax tey li nga xam ne fi lañ sat bi wax naa li fi fekk. Mhm. mais li ñu fi def gis nga boo ko doon tënk bi mu ñëwee def ne mënuma yor commune boo xam ne ci volet éducation li mu war a am amu ko. Mhm. ñu toog saytu tëju ci nekk def diagnostic bi génne sport jafe-jafe yi mu indi ci ay solutions yu rapide. sat injustice bi mu njëkk a réparé moo ñëw fekk ci commune bo xamne dafa am 12 écoles associatives xalé yëpp di sol blouse mu ne école publique bi nga xamne man ci sama ndodd la ko état teg. Mhm. ndax man may état. d'accord mënumaa nangu école yëpp di sol blouse xalé duñ sol blouse. chaque année muy subventionné lu mat 800 élèves kenn ku nekk blouse. yemu ci mhm. di len jox inscription scolaire parce que néna lu mu new new new loolu nga len di jox dina dimbali seen parents yi ci li nga xamne ci dépense bi la je pense que lu am am solo la. d'accord yemu ci. Mhm dem na ba parce que ci gis-gis ginaaraay amul école sem biñ ko bëggee def mu ñu def démarche dañu gis ne euh, commune bu amul ñaari école publique mënula am CM. d'accord te donc difficulté la woon te tamit ginaaraay ñëpp xam nañ ne problème espace dafa am. loolu moo tax école bi Moussa di wax foofu la jóge ci plan PACASEN ñu bari nag naan PACASEN mais dama ne la PACASEN du luy jóge naaw du n'importe où. Hmm. PACASEN concours la bu ñuy defal commune yi ci département de Pikine sur les 16 communes ñu bokk ci 5 ñu ba pare ñu jël pay am 6 sur 6. d'accord d'accord mais juste pour te pour pour ko émission bi neex man ak yow la. ayca saa bu la neexee euh, tàkk ñu ñu dindi turu Moussa Diam te ko fé ñi waxtaan man ak yow d'accord accord. man maa ngi ci bilan bi d' accord euh, moom am am na fu mu euh moy que ni euh, centre commercial bi lolu si magistère bi maire lañ ko défé donc dañ koy jël baxé ko maire né moko fi def. non mom bo xon lolu sax ñu nangu. def non dama lay laaj fi mu ne dama né la li am solo mooy centre commercial maa ngi dégg sax comme nee buñ bu ñu tudd tëram. ñenn ñi ne APIX. ñoo ko jox maire. xam nga lu ñu war a njëkk a leeral moom. Hmm. maire bu ñu génnee ci gestion état. Hmm. xamatuma kuy état. d'accord décentralisation. Hmm. état suprême bi ci kaw moo jël ay pouvoir jox ko ki ci suuf. le préfet dañ koy jox cëru monsieur le président parce que dañ ko jox ay responsabilités. sa décentralisation c'est le premier magistrat de la commune. de la commune am solo muy hmm. dafa bu de hmm. indi fa ay ay bu hmm. mais wax bi lan tax maison de la femme ñu ñëw gis centre commercial gis gare routière besoin bi kan moko émettre. de Mm-hmm. c' est la commune c' est maire moom moo ne APEX da ngeen ma yàqal bu ngeen may defaral. Mm-hmm. defaral leen ma lii lii laa bëgg nañ ko ko nangul. d' gis nga nag. Mm-hmm. kenn ku nekk ak sa wërsëg ci ayam ci la loolu am te it bu nekkoon ku yaafuus mën na am li ñu am tey duñ ko am loolu moo indi centre commercial bi indi li nga xam ne moom mooy gaaru ceer bi indi centre formation bi. donc jógewul ci kaw asamaan rek daan dafa am fu mu jaar beeg si foofu lan moo tax ñi fay liggéey meera leen fal. d' accord. d' accord euh, mbokk yi ñu fàttali leen yéen ci GR Info TV fii ci diwaanu Guinaw Rail ñu dalal tey euh, ki nga xamante ne conseiller municipal waaye tamit cellule de com bi mu daal di koy jiite muy Lamine Thiam ñu gën ko xamee ci turu Moustapha Thiam moom la ñuy amal tey ji waxtaan euh, fii nga xam ne mooy commune bu Guinaw Rail Nord Moustapha beneen laaj parce que gis naa ni ñu ngi dëgmal ay élection coow li bëri na trop en tant que jeune ñu xaw a wàcc tuuti tàngoor bi ndax gis naa ne yaram bi daa tàng. Euh, euh, coow li am ci bante tànk bi xastante bi euh, ndax yaakaar nga ni bu ñu duggee ci biir campagne bi lu mel noonu dina am mooy xeex yeeg saagante ndey. li wóor ba wóor ñun suñu leader ci lim ñu woo ci loolu rek la ñuy dox. mooy mooy élection yoo xam ne bu la leeree da nga koy gañe hmm. ci jàmm rek ngay dox. non violence. non violence parce que daf ñu leer dañuy gañe élection yi. kuy seen leader. suñu leader mais le maire Pape Ndiambé Dieng ki Macky Sall ki nga xam ne Euh, ci 557 communes yi. Mhm. bi ñuy tànn mairie est gën dafa 70e au niveau national. d'accord dans la région de Dakar mu 50 e dans le département sori na 11 e ok arrondissement d'Agoudan, Daan bi ñu mu premier. ok ak seen maigre moyen. ah mais dafa gis nga dama ne la xam nga cooli mo bari. Mhm. mais dama ne la ci candidat yi fi nek, il est le seul. koo xam laataa muy nekk mais danaan yëngu ci décentralisation loolu mooy xam-xamam loolu la maîtriser. d'accord moo tax du moroomu gaañ. Mhm. d'accord euh, damay ñëwaat tuuti ci Benno Bokk Yaakaar parce que dañu gis ni parce que si nga bokk socialiste nga waaye yaa ngi ci biir euh, coalition bi frustration yi am ñi ñu investir sa mbokk yeneen yi nga xam ñi ngi kaas ba daw dem ci ay liste parallèle ndax loolu neex na ci xool bu dee dañuy jëm élection référendum ñu ne la ka yow la président tànn kaay jiituñu ñëpp nangoo topp ci ginnaaw. Mhm. te boobu maire amul dara lu mu ciy gagné. ñu jëm ci élection législative yi. Mhm. ñu ne la kaay jiite. ñëpp nangoo topp sa ginnaaw ngay jiite di joxe ay directives ñu di ci topp. parce que boobu c'est le président Mansour moo tax ñëpp nangu. Mhm. ñu dem ci ay élection présidentielle pareil. Euh, bu ñu demee ci élection municipale président na yow la ñoom ñu ne du yow ñun dañuy dëggal waxu président rek wan président ne ko juumuloo. Hmm. léegi nag mënul am frustration ci ñun parce que du lu ñu bett parce que xamoon nañu aussi nii lay demee et nag c'est normal euh, li ci am solo mooy ñun ñi ngi liggéey te tey ñu wax xas kenn xam nga tax hmm. parce que je sais ñun xam nañ ne coalition Benno Bokk Yaakaar la ñu jiite la ñu jiital parce que ñi ne woon ci parti bi yëpp ñi ngi ak ñun kon waaw ñi frustré moom dañ leen xaar ci terrain bi rek en tout cas daal li li mbëri di wax arbitre bu ne prip di nga xam ku mën. Eh, non prip di prip dóor ci suuf ñu daal. d' mais mais nag euh, benn instant frustration bi di ngeen ko nangu parce que am na ñoo xam ne kenn yaakaarul dinañ bokk. par exemple. investiture ki nga xam moy Amadou Diarra. waaw non peut-être man maa yaxa sax sama commune nga bof. dina ñëw ci yow. ok d'accord bof ci ci domaine dans le département de Pikine. waaw man sincèrement investiture Amadou Diarra bett moo. Hmm. ndax la. parce que bu politique nga ngay analyser politiquement. hmm. Diarra. fi mu toll ci politique mënul dugg ci benn bokk yaakaar te président du ko promettre ni ko bu ñu demee élection yi dinaa la jiitalaat donc moo doon doon sacrifier boppam. xam naa ne kon bi muy dugg ci benno hmm. fekkoon ma ko mais ci accord yi nekkaat tête de liste Pikine Nord ci la woon. mais te mais mais mais ponkal yi nekk foofu noonu ñoom noonu laa leen mën a tuddee. tey jii ñu daanu mais ah, mais jàpp nga ni ñooñu tamit ñu ngi ci ñu ngi ci kaa yu doy waar. waaw ñu ngi ci waaw en tout cas li am solo xam nga li doon gën. Hmm. l'idéal moo doon ñëpp ñu ànd.

mais ça veut dire aussi intérêt kenn ku nek intérêt personnel la parce que juróom ñenti candidat yëpp. Hmm. amon na période boo xam dañu dajewon ci benn ruq. waxtaan ñom ñep ne tout sauf Pape je. Dieng. Hmm. lan moo tax bi ci yegsee ci ñu and ànd. Hmm. loolu lu jara baye xel la. moo tax la candidat yo yep sen intérêt personnel mo len fa mais du intérêt commune parce que bu doon intérêt commune au moins sen bir ñaar ba ñett mo nañ boole and mais bi jital jiital kenn ku nek dese. dañu tànn kenn kenn ku nekk danga ne man la bu dul man du keneen. d'accord mais juróom-ñeent am na si ñoo xamante ni ñu ngi woon ci PAM Ndiamé. waaw. ku ci mel ni Ousmane Sarr. non Ousmane musul nekk musul bokk ci yéen. musul bokk ci ñu. keneen ak keneen tamit noonu. peut ki nga xam ne te dañ ko koy nangu la ah. hmm. muy bay Diouf nekkoon na fi directeur de campagne PAM Ndiamé mu ñu nangul ko. mu doon ko dem. waaw mu nekk un jeune bi parti socialiste amee ay jafe-jafe. moom mu choisir dem rangé wu ci kaa xalif te loolu aussi dañ koy nangu ci politique. choix la. et hmm. aussi nit la ku ñuy ñaanal mais moom xam naa ne ren du bosam mais avenir politique la ci ginnaaw raay. d'accord moom ak Badji. Hmm. Pastef. monsieur le maire am na am na fi ay ay liggéey ay travaux yoo xamante ni mi ngi ci moom buñ ko falaatee la ko fas yéenee eggale. waaw non dañuy xam nga moom dañ am nañ sax rafet njort bala ñoo àgg ci élection yi travaux yëpp ñu boucler ko mu doon lu am solo. Hmm. parce tey. te élection fi e mu mm. ne ci des. mais dañoo sori. weer. dama ne la ñun li ñu dese pour ñu boucler suñu travaux bariwut. xam nga dama ne la ñun dañu def nit ñi di gis saat asamaan si mi ngi nii nag nga bañ ko xool kooku yow la concerné def nañ nga ne defuñu. kooku mhm. loolu dama naan yow yow la yow la. d'accord nit ne defoo leen waaye yéen li ngeen def ngeen wone ko nit ñi gis ko. mais mo xam nga ku weddi su la dañ ko def dama la da ngay ñëw je te donne un exemple. parce que yaa ngi su ma bëggee dugg ci bilan bi paax xam naa si comprends mais dama ne la. non dinañ ci dinañ ci dugg. waaw dama ne que benn instant day toll moment boo xam ne cellule de communication nga yore. boo liggéeyee. même bu dee dërëm sax boo ko joxe war ngaa wane ni dërëm laa joxe. askan wi tamit comprendre gis ni kat maire moo joxe dërëm bi. waaw mhm. moo tax man la xam moo tax man la ñun ku weddi dañuy jàpp sa loxo néew ne la nga xool. Hmm. dama la jox exemple li ñu def ci santé. boo duggee ci post santé bi dina la leer ne la. Hmm. maire bi muy ñëw poste de santé bi bu 8 heures di tëj midi la fekkoon. am ay ñax. Hmm. léegi da ngay fekk poste de santé 8 heures lay fa ngay soxla femme di nga ko fa fekk. di nga fa fekk échographie. Hmm. di nga fa fekk matériel dentaire di nga salle d'hospitalisation di nga fa fekk personnel bu mi ngi joxe subvention à hauteur de à de millions mais kooku boo wéet dañu ne la ICP baa ngi laajal ko sa la mais ñu xam ne yow la yàlla xam tey na. mais nag manque de communication bu amee tamit toujours euh, day indi jafe-jafe. waaw xam nga mën nañ ko tuddee manque de communication parce que communication bu doy même état sax amu ko. Mhm. parfois sax Macky le président Macky Sall dafa am déficit de communication rawatina ñun suñu commune. mais tey li am solo. Mhm. Euh, dañu dëkk ak nit ñoo xam ne xam nga man dama koy faral di wax et j'assume dama naan sama waa xam ku koy bañ lan nga koy bañee nga am sa peut-être nga yëgal ko jot te jot gi manqué.

concurrence. ban ah, comme kan mais bëri na. non jox may jox exemple. non du ma dul tudd tamit juróom-ñeenti juróom-ñeenti candidat kay. dama ci gisu mën a yëngal. non dama lay laaj. dama ne ci juróom-ñeenti. Hmm. dama ci wax parce que gisuma ku ma mën a yëngal. Hmm. xanaa déggu li sànq dama ne la mbay Diouf jeune la. dañ koy encouragé. d'accord parce que carrière politique mi ngi ci kanam. barji bu Pastef. Hmm. ñooñu ñooy avenir ginnaaraay mais li ci des mais naada. zéro. loolu nga jàpp yow. mais ñoom bii bii ma pare ñoom yóbbu leen retraite. bi <laughs> d'accord mbokk yi ñu fàttali ne yéen a ngi ci GR Info TV fii ci diwaanu ginnaaw raay Nord tey fi la ñu nekk dalal ci am ñu gën ko xamee ci turu Lamine Thiam. def ak moom waxtaan ci wàllu langue politique yi euh, Tafa xam naa ne nag euh, yaram bi commencé na fi mu nekk nii di tàng bu baax a baax. Hmm. lan ngeen. projeté fi mu nekk nii bu ñu leen fale parce ñu bëri ñi ngi naan da war a am programme wane ko nit ñi gis ko lan ngeen projeté fi mu nekk nii loo xamante ni priorité la pour ginnaaw raay noor. mës ngaa dénk maa lànk maa bañ. déedéet. dégg naa ko nag xale yi di ko wax. maa lànk maa bañ. Hmm. xam nga lu tax. Hmm. ñi ngay tuddee ay candidat hmm. dañuy dugg ci kër yi di génn. waaw amul kenn ku ci dugg ba génn ko wax programme xam nga lu tax. amuñu ko li mais bu bis bu jotee pour moom ko askanu ginnaaw raay. non juste priorité yi rek. non dama ne la li ma yor. maa hmm. déggoo maa lànk. non mais dama laa laaj priorité yi rek laa soxla. candidat yi nga may limal ci ginnaaw dama ne la amuñu programme li ma yor du leen ko jaay xanaa déggoo bis bu nag wax ko askanu ginnaaw raay jotee danañ ko fañ ko war a waxee. Hmm. mais li ma wóor mooy xam nga dañoo def. d'accord danañ dolli ba nit ñi yéemu. Hmm. ginnaaw fi ñu jëm ak moom pareeguñ voilà euh, nee nañ nag maire dafa war a dem uti ay partenaire liggéey euh, ci loolu lan nga yaakaar ni xëy na moo xaw a des tuuti ñu liggéey tamit gën a dolli li ñu liggéeyoon. ah uti partenaire. maire boo xam ne bu utee partenaire tabax ñu ne du moom partenaire bi la. dégg naa sax ci sa benn émission comme nee bu ma tudd waaj ndax waaj xamul dara amul xam-xam journalisme sax dañ ciy dute comme nee nga du ma ko tudd mais xam naa dina ko seet. mais na xam ni Saat amul xam-xam. Hmm. xam nga courage bi fan la fan fan la doon fan laa ko doon xaar. Hmm. mu ne au moins mair gis naa ko benn yoon mu yéeg avion dem Italie. uti partenaire. jële ko Italie indi ko ginnaaw raay. ay italien. waaw. Hmm. même bu dee moom jàpp ne na dara amaatu ci mais au moins maire am na fu mu yóbbu image yu ginnaaw raay mooy osé na. utiliser na passeport diplomatique am pour Saat yëkk ci ginnaaw raay. mais xam nga analyse am fan la ko teg. Mhm. li askanu ginaaraa jël ganale ko ci partenaire boobu moo ëpp en retour moo tax man la amul xam-xam. d'accord mais nag bu ngeen ko xamalul doo xam moo tax ñu laaj la il faut nga tontu pour mu leer. mor nag ku naan ku naan man journaliste laa yaa war a xamale booy xaar ban lay xamal investigation dañ ko ko jàngal. Hmm. duñ ko xamal nag ñun rajo oxygène la ñu jàngee li ñuy wax dañ koo xam bu baax. d' accord gën a ñoo mën métier bi de. d' accord euh, ñu dugg ci beneen volet muy volet culturel bi ba tey yaa ngi woon ci bilan beeg yooyu quoi mais dañ ñoom ci ci ci li nit ñi di wax jàpp nañ ne peut être da ngeen leen xaw a bàyyi tuuti loxo. waaw xam nga. yéen ASC yi ngeen gën a faral ñuy football nag ngeen ngeen jàppale. mais côté culture bi moom da ngeen xaw a daw. ginnaaw gis nga côté culture dama lay wax. Hmm. du ma ne lépp mate na. parce que hmm. ne lépp mate na sax mooy yem askanu ginnaaw raay mais dama ne. La maire mi def ay djégu yam solo. d'accord man acteur culturel la bi may nek conseil municipal. Mhm. sa ci acteur culturel ci la duggee nek un conseil municipal. kon maire jox ci acteur culturel yi. ci lima ma fi xam sama connaissance ñaari troupe théâtrale ñoo fi nekkoon. d'accord ñaari troupe yëpp bu ñuy répété maire moo leen jox salle de répétition. fête de la musique gis nañ maire yëkkati koom-koomam dugal ko ci te culture la organisé nañ ci ak madame la maire ciseau d'or woo acteur culturel yi. Hmm. woo ñi nga xam ne ay entrepreneur di def yëngatu ci wàllu couture coiffure. yëkkati nañ fi subvention jox ko ay acteur culturel ok des na naam loolu dañ koy nangu. gis nga Mor yàlla dafa am lu muy jàngale c'est très important. bu ko neexoon dara déranger ko àdduna mu tabax ko ci benn fan ñëw toog. Hmm. mën na ko lan moo tax mu def ko ci juróom-ñaari fan. daf ñu bëgg a xamal ne lépp loo gis ci àdduna ay jéego la benn par lañ koy teg ba àgg. ñu xëy bëgg waaj ci benn mandat mu def lépp. Hmm. mu ta nekk bu dee ñoom mën nañ ko nañ ñu ko wax. d' accord mais fi mu nekk nii am na lu ngeen di waajal acteurs culturels yi. li am solo mooy ci suñu bilan bii ñu jëm. Hmm. Euh, maire xalaatal na leen ci pàcc bu am solo. te nag dama ne la fii doomu cuq cuq ba ma ne la ci détail mais li am solo fi ñu jëm ci fi ñu jëm nii euh, acteurs culturels yi maire sóor na leen bu baax a baax. Hmm. et bu ñu neexoon suñu son campagne ñu wuti ko ailleurs mais ki koy ki ñu koy defaral doomu ginnaaw raay la am gëtoo macha allah. moom jëlal sa yëf. d' accord mais tamit ñuy dugg ci tuuti côté religieux bi parce que gis naa ni imaam yeeg yooyu ñoom it euh, yéen a ngi leen jàppale mais am na ñu jàpp ne dafa xaw féete boor. féete boor. ah waaw loolu la ñu dégg nañ ko ah. moom moom kañ dégg nañ. da ngeen di jox ñii bàyyi ñii. xam nga bu la neexee. Hmm. Hmm? soo paree nga jël sa caméra bi ñu ànd. Hmm. dugg kër imam par kër imam. li leer te conseil municipal bi dogal ko maire di ko doxal. mooy dafa jël subvention annuelle. ci 13 mosquées chaque année kenn ku nek mu yëkëti 100 000 dollars pour pour jumaay mhm. pour paiement électricité ak eau parce que difficulté lolol moi la ma mënuma saay bu facture amer ngeen ma mère fayal mhm. mais 100 000 ngi tegg leen ko bu ndox courant ñëw lu ngeen d'accord d'accord diko défal délégué de mhm. quartier jël délégué yobbu ko makka kon kañ koko te bim koy def délégué ñoo tiré ci fait que on kon ana par par lool mom bu ko gisé nako wax xam nga gis nga booy communiquer daf danga war a wax mu leer xam nga maa ngi koy dégg sax mu naan eh, le député Mame Diarra Fam dafa am atu yu kële amul yenn atu mais da ko wax ñu dégg atu rek atu rek c'est trop vague comme communiquer. dama da leen yëngal nag. non dama ko bëgg xam ne ko dëgg nañoo dëkk ginnaaw raay na yem. ndax. ndax bi muy topp man Lamine. Hmm. sama ginnaaw naam damaa bëgg bokk seen cellule de communication. Hmm. xanaa boobu lay door a gis liggéey boobu maire liggéey loolu. Eh, moom moom laay waxal bi nga may topp naa ma seen cellule de communication boole leen <laughs> Lamine Thiam xam naa ni fi mu nekk nii xuloo bi moo lay gën a yëngal fi mu nekk nii voilà mais juste bu ñu duggaatee ci ci bilan bi wax naa la ko sànq mais xaw ma li tax nga bañ mais cof mën nga ñëw sax lu mu bon ba nga ne ma maire am na lu mu mal parce que dégg naa for naa ko nag nit ñi di ko wax ne am na lu ngeen waaj a inauguré ci ay fan yu néew non loolu loolu loolu lu noppi la xam nga lu ñuy waaj inauguré hmm. dañuy waaj inauguré maison de la femme neel bu ginnaaw raay nord waaw waaw jumaa ji nekk fii ci bayal bi d'accord neen ñaar delloo ñaar non yow yaay compter man maay laaj ngay compter non dayel compter yow del compter école baraak bi nit ñi doon wax naan du àgg. waaw dañ koy waaj inaugurer. Mhm. inauguration yi moom loolu la. trop école bi indi coow li. coow la ndax barki démb naa fa ñu fa dugg de. ñu fa dugg def la. Ah, am na ñu fa duggoon di xool de. ah waaw ku mu neex dugg xool boo demee. gis mm, xëy na am na lu ngeen fa liggéey. non dañoo liggéey maam dañoo ñëw fekk école boo xam ne. Mhm. benn la ci pub ci ginnaaw raay benn école publique. dem ba yegg ci 800 élèves maire yëg ci xolam ne lii mënatul nekk. Mhm. parce que da ngay dem ba finalement boo bëggee sa doom jàng école privée rek nga ko mën dugal parce que école bi àttanatul kenn mu ne lii dafay dakk day jeex. d'accord am courage yëkkati ko en otage en étage di ko tabax nit ñi di yàq di wax du n'importe quoi yaakaaru ne liggéey bi du àgg. Mhm. tey étage ba pare na ba ñu teg. d'accord moom ngeen di waaj a inauguré ci suuf pare na tuutee ci des ñu inauguré te incha allah dinañ ko inauguré est-ce duñ ko bee suñu campagne. mais man nag loolu moo may xaw di jaaxal da ngeen bàyyi ba ñuy waaj a campagne ngeen di inauguré quoi. bëri na ci nag mooy mooy bi nga xamee newuñ ci période campagne nit ñi da nit ñi maire di liggéey. Mhm. lu ne di nañ ko ko ci réseaux sociaux mu ne nemm noppi. et bu campagne jotee nag heure wax la dina wax kenn mënu ko teree wax. kan mooy wax neexee bàyyi ba heure. non kan mooy wax. opposant yi ñii ba non non non wax wax ma opposant yi Pape Ndiame nga wax moom mooy wax. mooy wax moom moo war a wax. ah bu ni bu ko nit ñi ne defoo dara. Hmm. di ko xas di ko yekk lu ne. mu noppi ndax yaru ba campagne jonk dina ne ah gars yi lii kat maa ko fi def. d'accord ku ko a bañ. mais juste tamit euh, benn benn benn yóbbante mooy que ni moom pour pour nit ñi jot ko problème la pour mu communiquer. loolu dañ koy faral di wax lu bari sax Pape ah, Ndiame. olof moo ñu ko jàngal liggéey lu bari wax tuuti. Hmm. mais nag dañoo toll ci jamono joo xamante ni li nga liggéey da ko war a wone surtout nag communes yi. Ah, ci lañ toll nii moo tax man la faaw. parce que askan wi ñoo soxla lool li nga def da nga leen ko war a gi dama ne la dañoo toll per bi ci jaay suñu bilan te dina hmm. jar. Hmm. xam na ni ñuy def ba jaay ko cellule de combat ngi nii. yéen a ngi liggéey. ah baal ba élection yi bañ toll ci. non dama ne ndax yéen ngi liggéey. xam nga lu koy firnde. xam su hmm. ma ne ñu ngi liggéey dañ naan liggéey ñu dara. gaa yi ñoom dañoo baax mais ba le 23 juin dinañ xam askan wi kan lañ tànn. ginnaaw raay noo. waay. ba baax na d' accord ñu demaat ci beneen pàcc ah parce que wax naa la ko léegi junj la mooy que ni ASC yi yéen ñoom ngeen faral mais culture bi gisoo leen ASC yi fi mu nekk nii ak bilan ak euh, li nga xamante ne mooy koom bi nekk ci biir commune bi li ngeen leen di jox ndax jàppale ne aussi priorité am na feneen fu mu xajoon ngir jox ko tamit équipe yooyu wàññi ko tuuti. xam nga xam naa ne dinañ ma mere ci laaj bi quoi. non mais moo priorité choix la ci nit mm-hmm. xam nga tey bu boolu ceeb tegoo. bi di ceebu jën bii di ceebu ginnaaw priorité bi priorité bi nga war a lekk sa choix la rek moo tax priorité pour man choix la parce que amul dara loo xam ne nekkul priorité ci commune. d'accord et je pense que aussi li maire di defal ASC ça dama ne dafa nekkoon un acteur de développement nekk ci biir ASC. Mm-hmm. daan yëg coono yi nga xam ne ñiy jiite ASC dañ koy am su mat si jotee kenn ku nekk di génne sa poste di cotiser. waaw ñenn ñi jël seen dépense di ko def pour ASC bi mën a dem fu bali mu ne lii coono la. Mm-hmm. dinaa ci indi saafara.

ak benen ASC e bu newul ci commune mu def ko match am kooku nag wàccoo naa et nag je pense aussi c'est normal hein parce que aussi lo xamné ne dafa jëm ci ASC e yi. Mhm. mu def ko ci la rek. d' na kenn ku nek ak sa appréciation. mais mom bu woté en contrepartie ASC dina e dinañ japp jàpp ci nag liggéeyu jeunes yeeg yoyu waaw c'est normal parce que ASC aussi rôle am lool la moy ñëw japp ci xam nga kooku euh, acte de citoyenneté maam kenn du ko jangal kenn man ci ASC bi la bokk. su commune bu woy sax duma xaar sax ñu woo Hmm. en tant qu'acteur, man ma wara dem parce que tamit lolu moom mooy devoir ASC. moy su commune bi xewlee nga dem liguey ça hmm. def ci pour tamit délo li nga xamné commune bi parce que commune lim lay jox alalu askan wi la. donc ça bu commune bi je pense que da nga wara ñew d'accord ma dugg tout ce domaine moy parce que yow ya ko waxal sa bopp ñaari troupe théâtre ngeen am euh reconnaissance juridique bi est ce que am na ci ñaari troupe yoy ba paré ah man de sama boss am naa am ngeen ay kayit. compagnie andi liggéey. waaye ah. maire da leen subventionné. mais bien sûr. à hauteur de à hauteur de. man jot naa subvention wu maire à hauteur de 250 000. beneen beneen troupe bi. non beneen troupe bi xaw ma. ah mais en tant que yow. nga si man da ma laaj sama troupe. waaw mais yow war ngaa mën a tamit waxtaan ak ñooñu. waaw man sama troupe li ma jot laa parce que am naa récépissé. est-ce que beneen troupe bi amoon na récépissé. Hmm. je sais wóoru la daal wóoru d' accord léegi ñu duggaat tuuti ci langue politique yi parce que fi mu nekk nii xam naa ne euh, commune bi moom yéen a ko wax mokk na fi mu nekk nii daal ba pare. le 23 ngeen xaar no no no no Bart abal batam bi rek bëri nañ ko ba paré ñu dem ci départemental hmm. département di de Pikine euh, ndax gis nga fim mu nekk nii ki ko war nako mëna jëlat xam nga lu am solo hmm. duñ wax mukk le contraire mais nak bu amee da ngeen ko wara wax da ngay may déglu xam nga tay yow li nga bëgg li nga bëgg mo wax duma ko wax par force lima bëgg wax man lay wax. non man lima bëgg dama la laaj. yow kay ah, tontu ma rek moo tax da nga bul ne ma. wa non bul ne lima bëgg wax man lima ah, bëgg wax kay xamugo ko dama lay laaj tontu ma rek. xam nga hmm. tay li am solo. moy hmm. ki président tam moy sunu candidat dañuy japp sa le bon choix. moy Timbo. d'accord dañuy liggéey pour mu ndam. Hmm. parce que néna ñun sunu leader loolu lañ jangal discipline. d'accord ci dess amuñ ci commentaire. léegi da japp ngeen mo wara war non mom comme dafa joxoñ dañ top joxoñ bi rek waaw mhm. parce que mënuñu sax xam nga nit du weddi boppam mënuñu président tànn ko fii ginnaaw raay noor ñuy mhm. tàcc. Mhm. président tànn keneen feneen. mi naan ñoo bañ dañuy tàccu. bennoo. waaw mais ku jéegi dina métti de. ku jéegi dina métti trop. en tout cas yàlla baax na. non waxuma yàlla yàlla kay moom ba mu baax d' accord mais xam nga ni dina métti. est-ce que pickin yow mën nga ma génneel adversaire de taille amul. non yow koy yaay yéen yéen ay campagne xam nga man man politique yéen yéen ay politique. amul malheureusement de taille amul. Hmm. nga jàpp. ay ñu demoon bëggoon dellu si. non non yow mais yow loolu mooy li nga jàpp. waaw non gisuma adversaire de taille mais daaw mos nañ ko ba pare. mu jiite woon. waaw mais xam nañ lim mën a lim tële. dem ñëwaat bëgg a dem dellu si amul fii tey yeewu askan wi kan la. bés su ñàkk nekkoon premier adjoint Timbo non xam nañ xamante nañ gars yi bu ñu. ah waaw mais ñu xamante aussi tamit. waaw no moo tax man la xoolal poids bi newu fi léegi na li ci des mooy kenn ku nekk na dem wucc rek li am solo Mo ñun fii ginnaaw raay noonu. Hmm. liggéey bi ñu war a pour jox Timbo li moom incha allah dinañ ko def. d'accord ñun loolu ñun suñu devoir loolu la. saat hmm. mooy le 23 janvier président xam ne juumul ci choix bi. d'accord euh, damay ñëwaat tuuti sa commune ah euh, ñu waxaat tuuti ci maire ndax comme yaa ko fi toogal donc du du du du ay baatu ginnaaw mooy que ne nit ñi dañuy dañ ne maire social mais ñi koy gis tamit bëriwul euh, ñëw ci maire bi sax gis ko sax problème la même audience yeeg yooyu sax day xaw di am ay jafe-jafe. eh ñun amuñu man nag li may wax nii yëpp dañ ma ko dama ko ah, laaj askan wi de. man dama ne la askan wi. Hmm. est-ce ndaje ñi nga xam ne dëkkuñu ginnaaw non ginnaaw raay noor laa wax. Ah. waxuma ginnaaw raay sud waxuma ginnaaw raay est ginnaaw raay noor. Mor. Hmm. maire bi dalee ànd ba léegi mu yor commune bi. Hmm. musuma dégg jour d'audience bii la. ah d'accord bu fi nekkee boo ñëwee secrétariat boo toogee xaar bu amee jot recevoir la. d'accord mooy maire boo xam ne. Hmm. xam lu ko gars yi di jëwee. nañ naa ko sax mën ngaa dem xew mën ngaa dem dëj ku xew la woo nga ñëw. xam lu ko gars yi wooye. bu inondation amee. guddeeg ba da nga koy gis ci terrain moom mooy maire inondation. xanaa ma ginnaaraay bu tàqalikoog ndox mais Pape Ndiame Dieng moom moo tax. ah laaj ma preuve bi. 2005 laaj naa la ko léegi. Kër Massar. Hmm. li ko taaloo ba nit ñi di daw di yóbbu loolu daa waroon rayee ginnaaw raay lan moo tax loolu amul mooy parce que saay bu tawee une de temps après ndox mi am fu mu dem di dem moo loolu tax ginnaaw raay di exister ba léegi. d'accord. d'accord euh, ñu fàttali ah ñu ngi ci GR Info TV euh, di chaîne YouTube bi nga xamante ni leen jox bépp information boo xamante soxla ngeen ko mu nekk fii ci diwaanu ginnaaw raay li ñu dese ci ay simili ah pour ñu ma lire sama feuille bëri. feuille feuille bi bilan la. non d' accord la moom la si loolu laa bëgg ñu dugg. ci bilan bi parce que parce que ñaala programme bañ nga wax. programme bi sama góor gu ma wane ma gaay ah, gars yi de dugg nañ ci sama kër bi sama góor la waaw mu ne waaye daal bi ñu toogee dañ naan maire def maire maire maire rek waxuñu ma programme ma ne leen waa ji dugg na bëggante tuddul seen tur. d'accord. dañoo am programme tamuñu programme comme nag ñoom ñu la di campagne garaaw. d'accord li denc ko rek. xam nga junj nga ma sàng man la euh, da ngeen li ngeen fi fekk. waaw bi ngeen di ñëw li ngeen fekk ci commune bi li ngeen fi def ak li ngeen fi naan a def. xam nga loolu tamit ci bilan bi la. waaw ah, li ñu ci nar a euh, ñu dem ci li nga xamante ne moom ngeen fi def ak li ngeen bëgg a def. li ñu bëgg def moom mën naa la ko dencal mais li ñu def xam nga non mais li ngeen bëgg def koy foog population bi xam ni aussi nam ma ngeen defaat naa nga pour baal ma njëkkee ci li ma def ba pare waaw li ngeen def waaw loolu moo gën a wóor d'accord léegi def xam nga sànq maa ngi ko ci wàllu éducation d'accord am na loo xam sax wax naa la ci école élémentaire bi waaw li ngeen def boobu waaw mhm. dafa am ñaari am solo yoo xam ne daat mënu ma wax bilan maître du ma ko tudd mooy case des tout petits bi case des bi parce que gis na ne njàngum xale yu tuuti tuuti dafa am solo moo tax mu def effort ba taxawal ginnaaw ay case des tout moom dafa ñëw indi ko. parce que jamono yi Ablaye waat lañ fi créé woon yooyu. mais moom bi mu ñëwee. commune bi amul casier. amu ko woon moo wuti partenaire ñu tabax ko. d' accord yaa ngi dégg. Hmm. dégg naa ci sa émission ku ne defarul dara étudiant yi. amicale et élèves étudiants chaque maire chaque année maire subvention. man ma laaj musaa Thiam moom mu wax loolu. waaw waaw kay balaa nga naan man. waaw non Moussa Thiam moo ne. ba muy defal ASC. mais chaque année maire da leen di subventionné un d'accord étudiants yi ginnaaw raay nord. jaa yi nga xam ne. dañu nekk université comme ni mu ko doon waxee. d'accord chaque année. ci côté déplacement transport beeg yooyu. waaw ak seen logement ak logement ok. mu doon lu am solo. Euh, gis nga boo ñëwee ci environnement boo bëggee régler de régler problème sécurité. Hmm. dafa am aspect boo xam ne mun loo ko occulter mooy éclairage public. ok bi ñu ñëwee ginnaaw raay dëkk bu lëndëm lañ fi fekk. maire taal lamp yi ba ñenn ñi di ko xëccoo moom naan maa ñoo taal waaye ah, nag kii yëg ci pot lamp di defar xam nañ ne kookoo taal. ba mu leer nañ nañ nit ñi mënatuñ ko werante hmm. nga nga gis ne kon aspect yu am solo la comme temps bi day waaj jeex parce que damay tontuwaale ki naan suñu commune budget bi attanul emploi <laughs> ne président Macky Sall mënta sax la problème emploi ba maire di ko régler damay damay laaj kooku yéenam ci ginnaaw raay lan la xam nga maire moo ñëw fekk commune mu am budget bu tuuti mu ne li muy néew néew néew samay doom yi dëkk ginaaraay raay dinañ am xëy recruter 127 jeunes ñu di fi liggéey. ak ay 127 mais est-ce que loolu budget commune bi da ko attan. xam lu am solo. Hmm. ndax bi mu ko defee ba léegi. Hmm. ñu ngi fayeeku wala fayeeku. waaw lu jar bi am na ne woon ginnaaraay 6 mois doo dañ koy tëj. loolu du wax ji ndax boobu ba léegi ba mu koy def ndax ñooñoo ngi fayeeku waa wala déet ndax da koo dakkal wala dakkal ko déet da koy yokk. Hmm. xam nga tax mu muy muy oyof. yéene bi mu am ci doomu ginnaaraay na et je pense que lu ama am solo la wax naa ne la bi nit ñu gis nga poste santé bi ñu fekk. jigéen da daan wan lor war a suivre boppam def visite prénatale du ko mën parce que poste bi amul sage-femme. d'accord poste bi amul dara bi mu ñëwee dafa defarat poste santé bi daan na nak état yone ma sage-femme parce que mënta ñak ci biir commune Guinaw ok bu ci yemoon ñu ne li ko état jox la. Mhm. mais ci budget commune bi ci 127 employés dafa jëli sage-femme te ko ci commune ndax am na njariñ wala amul njariñ ci ñoo ñaan emploi ñaan maire bi àttanu ko da cee renforcer personnel santé bi dugal leen pour ñuy mën di presque 24 heures sur 24 je pense que am solo la mu yëg ne jigéen ñooñu bu ñu def échographie dañuy jéggi raay. dañuy dem Dominique mu jënd matériel échographique buy 5 millions. Mhm. mu yëg ne ku sa bëñ di metti doo ko mu dem jëndi euh, matériel bico dentaire buy jar 7 millions ni ko ci poste de santé bi. d'accord bi ëpp solo mu yëg ci poste bi boo feebaree mënuñu la hospitaliser parce que amul salle d'hospitalisation mu tabax fa salle d'hospitalisation boo xam ne montant bi 5 millions ñu li ñuy wax preuve à l'appui la waxuñu pour tàgg suñu bopp wax wax loo xam ne sosol suñu bopp lii existe la ñuy wax et je pense que lu ama am am solo la wax naa la bi ñu ñëwee ci environnement hmm. euh, xamoon na ne xam nga tey maire bu ko neexoon ne inondation bokkul samay domaine de compétence nit ñi da di yuuxu rek mais réalité bi loolu la état dénk ko ko mais benn maire bu am xol yéene sa gox dara nawet mënut a jot nga ne damay teud parce que du samay compétence ñemewu ko ñemewuloo ko. Mhm. c'est inhumain mais mom daf ko jël def ko daf ko yefi bopam danaka commune bi limi def ci inondation parce que xam ne difficulté la jafé jafé jafé la parce que nappe d'eau bi. dafa mhm. jege trop. d'accord mom kessé ci xaalisu commune bi. Mhm. mu def ci 300 3200 mètres linéaires yo xam lépp ay canalisation ay tuyaux yu mu duggal te ginnaaw raay nit ñang koy gis. ci budget bi ci budget bi. piste 2 bi. pièce 1 bi jeex ñëpp xam ni mu jeexee pièce 2 bi di ñëwaat moom maire mu jël bigam xalimaam bind signé di yéeg di wàcc pour état li waroon a jaar ci pièce 1 bi te jot te yegg parce que mu fexe ba mu jaaral tey askanu Ginaare amuñu lu ñu koy fay naan ko travaux état la mais nee naa leen mu bu maire sumi leen ko ci état ba xam. mais mais kàddu yooyu su ngeen ko déggee aussi communication bi moom foofu laay joxoñ laay joxoñ baaraamu tuuma yéen yéen a war a communiquer nit ñi xam. xam nga ki gis. waaw non ku gis ñëw gis ñuy gas di canal waaw non d' accord mais nag da ngeen di communiquer xam nga dama ne xam nga lu yolof yi di wax ku jóor ku boot bukki xaj mbaw la waaw bu ngeen wax leen da sonon bu la sa sonon bu la non bu leen gis loolu yëpp yéen communiquer leen rek yaarama ku boot bukki xaj mbaw la man la sonon bu la sëlëmee doo set d' et c' ça waaw merci donc je pense que yooyu dafa doon loo xam lu am solo la et gis nga aussi ci social hmm. dafa xam ne développement commune mënuloo ko def jaar bàyyi li nga xam ne moom lañ tuddee jigéen ñi. Euh, mu am tamit benn dame de fer man ku ma naw. Hmm. muy muy madame le maire Fat Ndiaye. sax mu jël ko combat boobu bootal ko boppam boot jigéenu commune bi di leen financer daanaka dama naan fu maire ñeme rek ñoom la. mooy première adjointe. mooy première adjointe di liggéey liggéey bu extraordinaire ci jigéen parce que maire xam na ne loolu mënta ñàkk mënuma defar gox bi te jigéen dama len di faté di len financement di ont financer tout le temps motax ma di remercier di fi ma len di xaar. Mhm. sa dafa am période bu def extraordinaire te moment déclic bi moy bi Covid amé kenn ñëmé wuta woté mhm. mu woté conférence mobiliser plus de 800 femmes. Mhm. loolu ko bari loolu ku ñëmé fi nga jëm rek d'accord ñu gis ñu aussi wéru koor gi. ngeen non mais ci le dëkk ci social. ci la dëkk et je pense que lu am solo la kon ñu dañu am maire boo xam ne euh, ginnaaw raay mm-hmm. mooy ki ñu soxla waa ji def na ma man de bu may dem ci yoon ki jaar ci yoon bi ba dëpp bu ma nee kaa ñu dellu mooy gën a dal sama xel ki fa jaaragu d'accord ndax dina xam gàllankoor yi dina xam waxi olof nga wax ni waaw mm. moo tax ma ne ginnaaw raay mm. waa ji ànd nañ ak moom benn mandat mm. te gis nga parfois tëqale mm-hmm. dafay am solo dama le maire Aboulaye Diop jàmbaar la 19 ans ci commune 19 ans. Mhm. ñun 7 ans. Il loo fekk ginnaaw raay sud di ko a ginnaaw raay nord ci 7 ans. Hmm. kon nit lu ko am ambition nit lu ko am gis parce que parfois di comparer. Hmm. dafay doon a am solo. moo tax man askanu ginnaaw dama candidat bi gën ci et eh, di doomu ginnaaw raay nag. Hmm. ginnaaw raay xam fi ko c'est le maire d' accord euh, boo fàttewul dara ci bilan bi kon ñu dem ci kàddu yu mujj yi. non bilan bi je pense que li ci ëppoon solo. wax nga ko. waaw wax nañ ko. ginnaaw raay noor. Mhm. d' accord comme nangu woo ma wax programme bi xanaa ñu bàyyi la rek nga tàggatoo gaay waaw tàggatoo bi rek mooy damay nuyu cellule de communication bi nga xam ne ñoo toog à côté. Mhm. vraiment ñu nekk ñoo xam ne macha allah lii may def aussi ñoom ñoo ma ko gën a mën mais buñ ma mayee opportunité wu ma toog fii di wax. et eh, dañu baax rek ma di leen sant di leen gërëm eh, di woowaat rek askanu ginnaaw raay mm-hmm. di leen wax ne aussi fi ñu jëm eh, ñun xam nañ yëg nañ aussi matale lépp ci benn saa yombul xam nañ ni yéeni ginnaaw raay yaana xam nañ ne bëgg-bëgg yi yaana nal mais nañ xam ne si suñu nal mm-hmm. yaana lool ba lépp xaj na ci ñu leen di ñaan rek fi ñu jëm nañ ci ñëw àndaat ak ñun pour ñu bokk liggéey commune ginnaaw raay Eh, dina wax si candidat yi ñëw. Hmm. nañu bàyyi sama waa ji te wax programme. yow na nga wax seen programme ngay laaj programme bu jàmm. no ñoom mais ñoom ñoom ñoo war a wax programme. Hmm. Mor ñun bilan la ñuy jaay. tollaguñ ci programme ñun bilan la ñuy jaay. non mais li ngeen dëgg ma la. déggoo ma de. bu baax bu bilan bi jaree. Ah. gars yi dinañ xam ne buñ ñëwee mais. d'accord du ma la wax lépp. Hmm. kon dal wax ji loolu la <laughs> et di wax vraiment aussi yow content nañ ci yow. et di la remercier. et di la ñaan aussi GRTV. Hmm. ca kaw ca kanam. parce que man dama la fekk oxygène nga tagat ma. Euh, nga def ci man lu bari ma gis aussi sa engagement ni ngay liggéey macha allah kon vraiment sante gërëm. et di wax aussi ne mbir mi daal mi ngoog sunu madame le maire aussi vraiment ñu ngi koy ñaanal di ñaanal aussi la grande coalition mooy bi nga xam ne parti socialiste nekk ci. APR a ngi ci bés du ñàkk hmm. mi mi ngi ci. yaa ngi propagande la hmm. réseau des femmes mi ngi ci ah ci la da nga koo mën a bañ. te dañ ko bañ yi ñu ngi ci. <laughs> mooy la grande coalition ak ñi nga xam ne aussi ay mouvement lañ. Hmm. kon vraiment ñu ngi leen wax daal le 23 juin. nañ ko def benn combat. niñ ko tuddee dóor dóoraat bu arab ne prip ñu ne leen dip ci suuf coow li ne tàkk ñu ne tëj seen làmbañ ba juróomi waat at dinañ noppi nag. non violence. moom la ñuy ñaan waaw boo yoree caq bu rafet. Mm. doo xeex doo xuloo. incha allah waaye nag nañ ñu moytu rek. yàlla nañ ci yàlla yóbboo ak jàmm. mbokk yi nga jëf sant ko bu baax gërëm ko Moustapha Thiam Lamine. mbokk yi nga xamante ni yéen a ngi seetaan seen chaîne YouTube GR Info TV di leen jox xibaar yi nga xamante ni moo soxal askan wi rawatina langue politique yi te it ñu dëgmal ay élections yoo xamante ni askanu Sénégal kenn ku ne yaa ngi koy xaar mbokk yi ñu dugg ci ak euh, jàmm ak salaam sant leen bu baax gërëm leen yéen ñi nga xamante ni yéen suñu ay internet di leen jox dig daje ci fan yu néew incha allah ci beneen numéro.